moy comité exécutif bu ONGAM comité exécutif bi euh kuréel la bo xamanteni bi moy doxal li nga xamanteni mom la assemblée générale bi teunk comme mom nim koy joxé li nga xamanteni ñu ci suñu organisation comité d'urgence yeeg bureau beeg instance yooyu noonu tay nak nu woon fi ci kaolak amal fi ndaje bi pour waajal li nga xamanteni mom moy euh, saison 2023 bi ni mais également

Euh, nu jël fi nag ay waxtaan yoo xamante ne yu am solo la pour jëmale euh, suñ kuréel gi nga xamante ne mooy ONGAM ci euh, kanam parce que nag ONGAM dafa nekk kuréel boo xamante ni bii dafa bëgg def en tout cas li ñuy wax nawetaan waaye def ko ci développement maanaam gis nañ ne nawetaan dafa war a amal njëriñ askan wi amal njëriñ ndaw ñi donc au de du sport suñu credo dafa nekk tey aspect culturel bi ñu indiwaat ko indiwaat yeneen i touche daal ci nawetaan bi ba nga xamante ni wax dëgg yàlla danañ ko mun a def ci temps réel période de vacances bi bu jotee nu fubal ko mu jeex eh, bu loolu jeexee autorité ba ñi nga xamante ne ni ay ndaw lañ te nekk ci suñ biir seetlu nañ ne tey ndawi Sénégal dañuy jóg di dugg ci yoo xamante ne nii lépp lu ñuy wuti ci biti buñ gënee takku takkaayu war nañ ko mun a amal ci suñu réew mi ñu doxal ko defe naa ne loolu bokk na ci li nga xamante ne ni moom mooy taxawaay yi parce que ñun li njëkkee mooy sensibiliser d'abord ñi nga xamante ne ñoom ñooy ASC yi sensibiliser leen ci lan moo ñu tax a jóg ak fan la ñu bëgg a jëm parce que kuréel bu juddu en 2017 wax dëgg yàlla état bu Sénégal di ko accompagner kon war nañu sant ki nga xamante ni kii moom moo jiite euh, réew mi ak ñam ca àndal ak démembrement yëpp. parce que buñ fàttali ko fan yi ci ginnaaw euh, instruire na ki nga xamante ni kii moom mooy ministre des sports euh, le premier ministre en charge du ministère des sports. Euh, te loolu it gis naa ne ngeen baal ma sax xam naa ne nu mu gënoon a gaawee ñu am ministère de tutelle boo xamante ne bii day occupé wu suñu structure bi dana ñu dimbali parce que jox na ko ay directives pour mu relancer li nga xamante ne ni moom mooy mouvement nawetaan bi.